وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jalla di moytandikuloo suñu bopp di leen moytandikuloo bëtt ay taneen di jëmale suñu xutbam tey ci ab xibaar boo xam ne bu tiis la boo xam ne moom la jullit ñi yewoo tey jii moom la ñooñ lislaam yewoo tey jii muy xibaar bu ñaaw ba dayob ñaaw muy ci réew mu ñu wax New Zealand bokk ci réewu européen yi tey jii ci bisub ajjuma ci ñaari jàkka yoo xam ne ay jullit daje nañ fa di def lii ñuy def ñun tey jii koo xam ne du ab jullit fekk leen fa ubbi naay seen kaw fetal di rey ba rey ci ñoom loo xam ne ëpp na juróom fukk ak juróom ñeent wala juróom ñaar blessé ci loo xam ne ëpp na ñeent fukk di dem mbokk yi xibaar la bu tiis boo xam ne metti na ci xol waaye boo xam ne war nañ cee def taxaw seetlu bu yàggutu mbay ci Charlie Hebdo xew xew ba fa amoon fukki nit ak benn lañ fa rayoon àddina bépp jóg kenn déggul ba ci suñu réew mi mu dagg sax suñu njiit bàyyi liggéey yépp dem ànd ak ñoom ngir naqarlu loolee lañu rayoon foofa lu ko ñeent te mbaa lu ko juróomete rey nañu ko tey ci ay julit ci yoo xam ne la zambe lahum defuñu dara dajaloo ci jàkka yàlla di julli ñii ñu ngi leen fekk ñuy sujjóot ñuy duru ko ñu ubbi fetal bombardé ñëpp mu ngi tiis mbokk julit yi waaye ba fi nii may wax ak yéen ñoo ñee doon yëkkati seen kàddu ak a ñaawloo ko naqarlu cher dina ba loolee xewee ca France ñooñu dañ ba tey ngi nax fatt fa réew ba nga gën a yaakaar nag ba fi mu ne nii njiit la gën a yaakaar mi ngi ne bat mbokk yi loolu ba kañ yal na yàlla musal yal na yàlla sàmm jullit ñi yal na yàlla sàmm islaam mbokk yi ci xaw-xaw bii de danañ ci fàttaliku loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko nga xam na moo indi lu mel nii mooy li ñuy wax teengal ak ëppal ci diine ëppal ci wàllu kuréel ba nga bokk walla parti ba nga bokk wala yoon wa nga bokk lislaam yoonu jub la yoonu maandu la woo xam ne dafa diggale dafa digg doomu yoon yi mu xàll nii day bëgg nga jaar ci digg bi doo jàng jëm bi doo jàng jëm bindu yi jaal naa ko ummatan wasata ci lépp ci sa pas-pas ci sa jaamu yàlla ci say jikko ci sa jëflante kon lii jàngal nañu mbonaayug li nga xam ne mooy ak tatarruf nga xam ne moo indi lii mooy li nga gëm jàpp ne loolu rek mooy dëgg keneen ku ci nekkul da war a jaamaarloo moom da war a xeex moom da ko war a rey te dagan na ci yow nga rey ko dara lu ci fekk loolu njuumte la borom bi azza wa jalla mi bind ñi ñëpp dafa daan wax yonent bi naan ko afa anta tukrihu a xatta yakunu muminin da ngaa bëgg a ma nit ñëpp doon ay gëm way gëm yàlla déedéet mënut a nekk la ikraha fi diin diine kenn du ñu forcé kenn tatarruf mooy yoon wi la sharia xàllal nga jeng jëm ndeyjoor wala nga jeng jëm càmmooñ waaye jaaroo ci digg bi nga yées mbaa nga ëpp loolu moo dal ñu dul jullit waaye nag ñuy def seen kemtalaay kàttan fexe ba loolu ñu jëmbat ko ci xoli jullit mooy jéggi dayo fi la sharia yam loo nga weesu ko ci sa wàll yépp sharia dafay xaraamal li nga xam ne mooy teengal jàpp na li nga nekk rek mooy dara mën nga koo jàpp mën nga koo fas waaye tag bu mu tax nga euh, noonoo walla ngay fexeel keneen ka nga xam ne bokkut ak yow wala nekkut ca la nga nekk da koo xaraamal ci ay wax wala ci jëf wala ci pas-pas léeg-léeg daf ñu koy tere léeg-léeg daf ñuy tere ñu nuru ñi nga xam ne ay kuffaar lañ ñi nga xam ne ay yahud lañ ak i nasaara ñooy ñaari kuréel yi nga xam ne ñoo gën a xaabaabal ci wàllu yooyu ndax li ñuy wax dialogue islamo-chrétien ba tey dialogue ak koo xamante ne bii respecté nga ko xormaal nga diineem xormaal nga ab yonenteem xormaal nga li mu nekk waaye yow xormaalul sa diine demul sa yonente gëmul sa téere wa bittaali mi ngi def waxtu bu nekk ngir fexe gàllankoor la foofu dialogue du fi mën a am mukk borom bi tabaraka wa taala daf ñuy wax ne bu leen teengal ci seen diine bu leen ëppal bu leen wax ci yàlla sax lu dul dëkk laa taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq wax ak ñoom ahlul kitaab ne yaa ahlal kitaab laa taxlu fi diinikum gayra alxaq bu leen teengal ci seen diine ba di ci dugal lu dul dëkk bu leen topp bànneexub ay gaa yoo xam ne dañoo réer sànq jadd yoonu bu yàgg a yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit di wax ne yéen nit ñi maa ngi leen di wattandikuloo li nga xam ne mooy teengal ci wàllu diine ndax ñi leen jiitu loolu mooy leen alagoon wax na ñiy teengal alku ñuy ñiy teengal alku nañ daal ñuy rëddal yoon woo xam ne wu jub la wu digg doomu la wu maandu la ci wàllu gépp kon ki nga xam ne yoon wi sharia rëdd jaaraloo ci digg bi dafa mel ne ab tali rek xatt boobu nekk ci digg tali bi mooy assawaau sabil yoon wu jub bi ñaari xatt yi ci wet yi nag yëdd yu weex yooyu ñaar yépp dañ leen a ŋàññi kila tarafay qasdi sabili zamimu kon li jur li nga xam ne mooy atatarruf nga xam ne mooy jur yóbbu ay nit ba ñu noonoog ñi nga xam ne dañoo wuute ak ñoom pas-pas dañoo wuute ak ñoom lu ñu nekk ba leen di yóbbee nara ñemee faat seen bakkan la koy waral mooy atatarruf loolu nag dafa doon loo xam ne yahuud yi ak nasaraan yi dañ ci xaabaabal waaye nag dañuy jéeme waxtu wu nekk di ko jëmbat ci xoli jullit yi xam ngeen ne waxtu bu nekk yéen a ngi dégg ci réew yi suñu réew mi ay kuréel yoo xam ne kuréelu lislaam la ñuy xeexoo kenn ku nekk naan maa nekk ci dëgg kenn ku nekk naan maan maay al firqatu naajiya waaye loolu tamit ñëw na ba suñu réew mi li nekk ci ay kuréel li fi nekk ci ay tariqa bi ñu ngi koy def loolu feeñ na ci wote yi weesu kenn ci candidat yi mel ne dafa jóge ca kuréel ba mu nekkoon ñëwaat ci beneen kuréel kuréel ba mu nekk xeex nañ xeexal nañ ko kuréel ba mu jógee xeex nañ ko kuréel ba mu jógee ñu ne fa la nekkoon xeex nañ ko kuréel bi mu ñëwaat tamit far nañ ko ci loolu lislaam koy tere kooy faral wala kooy noonool dafa war a tegu ci dëgg dafa war a tegu ci diine l'islam diine la joo xamante ni bii ju maandu la diine la joo xamante ni bii ju dugg doom la bëggul nga ëppal ci sa wàllu pas-pas li nga war a gëme yàlla bëggul nga ëppal ci ñeneen ñi nga xam ne danga nga leen war a jox xorma bëggul nga ëppal ci kon doo bëgg lenn wala ngay fonk lenn ci wàllu pas-pas ba koy tollal ak yàlla loolu mooy ëppal ci wàllu sharia tamit dafay bëgg nga diggu doomu ci say jaamu yàlla doo xër bay sos loo xamante ni bii yaa ko sosal sa bopp ci sa bëgg lu baax déedéet diine ji dafa mat sëkk waaye tamit ci sa wàllu say jikko ak saw melo danga ciy digg doomu dooja dama sàmm wala dama dëddu àddina ba fekk li yàlla xaraa li yàlla daganal ci yow nga di ko xaraamal sa bopp wala ngay def loo xamante ne bi day faat sa bakkan wala def loo xamante ne bi day xañ xaqi ñi nga xamante ne bi dañoo am xaq ci yow say doom say soxna say dëkkandoo say nangam kon léppam dafa diggu doomu waaye ci wàllu tamit euh, dundin wi noonu la ko lislaam bëggee yonent bi bi ko yàlla yónnee mu yowoote lislaam ci makka mësul kenn forcé kenn ci diine bi mu ñëwee Medina gàddaay fa fekk fa ay diine dafa respecté diine ñëpp jox leen xor ma ñi nga xamante ne bi ñooy jullit ñi yi ak njabootam mu wax leen ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteeg ñi nga xam ne gëmuñu dara di ay musrikoon wax leen ni ñuy jëflante ñi nga xam ne ñoo ay yahud ak nasaar yi nga xam ne amoon na lu ñu gëm ba noppi nekk ci digg digg bi nag maanaam di xool lépp di saytu lépp kon ëppal wala far parloo ci ab kuréel boo bokk moo xam parti politique la moo xam ab tariqa la moo xam ab ngir la moo xam lu mën doon ëppal ca mooy jur lii mooy jur keneen ka ca nekkul nga jàpp ne nekkul dara bi teel yi doo ko nawloo ba noppi di def pexe yoo man ngir maanaam faa faagagal ko ba lii mu nekk moom du ci dox mu génn ci loolu mbokk yi mooy at tatarruf yahud yi ak nasaar yi ñaari kuréel yooyu nga xam nañu ñoo gën xaabaabal ci yooyu nax nañ jullit ñi bu baax a baax a baax fexe ba jëmbat loolu ci seen biiri réew lañuy ñuy sos ay kuréel ak i parti yoo xam ne dañuy xeexoo ak a ŋaayoo réew mu nekk nag xam nañ kuréel ya fa nekk ak xeet ya fa nekk ba buñ fa bëggee taal sawara man ko fii ci senegal ñoom ci seeni jàngat wax nañu ne li fi mën a taal sawara du lenn lu dul tarixa murid ak tijaan amul leneen te gis nañ élection yi weesu doon na ko bëgg a taal ndax ci euh, jumtuwaayu xarala yi internet bi xuloo bi ak xaay ŋaayoo bi diggante murid ak tijaan fësoon na fi lool te ñoo ñu koy wax ñëpp su dee ci wàll gii duñu xaqiqatul murid bu dee ci wàll gii duñu xaqiqatul tijaan kon kenn ku nekk da ngaa jadd da ngaa jéng jadd jéng googu nag mooy at tatarruf muy indi xeexoo muy indi ŋaayoo ba indi fénqantoo di xeexoo wa iyaasu billah loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko tere dañu koo jàngal iyaakum wal guluwu fi diin wax ne lañu ña leen jiitu woon la leen alak mooy al guluwu fi diin kon ñoom ci biir réew jullit ñi ci kuréel yi fi nekk la ñuy jéem a fenqaloo benn bu nekk ñu xam lan moo leen di fenqale waxtu bu nekk ñu di ca dox suba ngoon amaana ci seen biiri réew nga xam ne ay jullit a nga fa ñu fexe ba def fa yu mel nii am ndaje am jàkk am ñu jekki-jekki yabal ñoo xamante ne bii ñooy taal fitna jooju rey fa ay nit su ko defee ñu giim lépp nag giñ ko lislaam ak jullit ñi ngir lan ngir yàq ngir ñaawal derub lislaam ak gisuñu lislaam ci ñeneen ñi nga xam ne duñu jullit mbokk yi lislaam lu ñuy jàng la jullit dafa war a al muminu kayyisun fatinun yonente bi la moom la wax jullit dafay doon ku ñaw ku nandite ku bàyyi xel lu bari waaye du nekk kii si nañu koo xam ne du ñëw day nelaw loolu jullit dafa war a wel weesu foofu mbokk yi li xaw tey ñaaw na lool daw na yaram ca anam gañ leen raye ku jóg na ko xool yi ci jumtuwaayu xool yi anam gu ñaaw la an ña doon woote ak nite di woote euh, droit de droit de l'homme ana ñooñu ana ña doon woote ak maandu buñ ne cel celaaral nii day baamtuwaat day amaat ca kanam lu bare bari ngi ñëwaat loo xam ne dana dal suñ kow wal iyaasu billah su fekkee ne jóguñu rek la ko su fekkee ne yëgguñ su fekkee ne xamuñu li ñu boole mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sëñ tubaa daf ñu wax na fala tuaadu ban raykum fahu yaxruju laa ilaha illa allah ci wàllu ولا تكن مفرطا أو مفرطا بل بل استقم في سنة bul ëppal bul yées bul bokk ci murid ñi nga xam ne naan diw murid la kon moom lay àndal aw mufritan bul bokk ci ñi nga xamante ne bi tamit dañuy ëpp bal istaqim fi sunnatin waaye saxal ci yoon yi bañ ko wàcc waxtu bi di ko xam istixaaba ñoom ñëpp ko jàng ci xasaay bi yal na yàlla defal dégg ak topp yal na yàlla sàmm jullit ñi yal yàlla sàmm lislaam mbokk yooyu faatu yal na yàlla defal leen yërmaande ñee ca belee sa yal na yàlla saafara leen yal na yàlla ubbi xoli jullit ñi ak seeni xel ba ñu mën a xam bu baax seen diine ji ba mën cee sax man cee woote man cee dund kullu aamin wa antum bi xayr kenn yàlla defal jëgu topp def ñu ay jaam yu xettat ñu jaamu ko